بالوالد ak yu mënta ñàkk ñu war leen ko topp ëllëg yomal xiyaama jëfu taalibi ci yan kenn du ci fay àq yàlla am na magasin boo xam ne si fa lay dégg jëfu taalibi tijaani jëf yooyee nag ci semaine bi waxtu wi nag la ñuy dajale jëfu taalibi tijaani yóbbu ca magasin booba moo tax dañuy wax taalibi tijaani boo xam ne du fekkee xadaratu juma bu yàggee fokk mu def lu génn ci tarixa bi waaw lu yokkuwul ma ngay wàññeeku bu ñu amee suñ téléphone yi bu ñu ko chargé bu mu fees eh, boo koy consommé ca ca doo ko branché ci courant bi. Mm-hmm. bu yàggee day vide. Mm-hmm. tali yàlla nag li nga xam si moo koy yokk di ko branché kenn ku ci nekk la lay yokk mu ngi sa kanam morom. Mm-hmm. maanaam tali bi ci yàlla kenn ku nekk sa morom mooy sa chargeur moo tax buñ dul daje. ci wasifa ci xadratul jumaa moo xam góor moo xam jigéen tali bi ci bu ko dul def. bu yàggee da nga def lu génn eh, tey nag eh, jataay yi ni ñu koy doxale nii Cheikh Anta da koy fekke mm-hmm. dañuy wax ni bu ñuy wasifa mm-hmm. bu ñu àgg ci juróom-ñaari per mm-hmm. Cheikh Anta day toog ak xolafaaw yi day teew ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo koy jiite waaye bu dee xadatul juma moom bu ñu commencé rek yonent bi day teew ba ba ñu ba ba ñu àggal eh, loolu nag mbir la moo xam ne si ci dañuy wax ni jaamu yàlla bu nekk fa mu gën a jafee fa mu gën a jafee ñu gën ko faa néewal fa fa la tuyaaba ji gën a bare waaw nii ngeen di dajee fii ci dëkk bi ah maanaam eh, jaamu fi yàlla ni mu néewee boo ko fi defee nag dañ la koy fulal hmm. moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa saxaaba yi am na nit ñi ñëw sa seen gannaaw boo xam ne eh, ñoom luñ def seen jëf ñoom bu ñu ko defee juróom fukk juróom fukk li leen defee la leen defee maanaam bu ngeen jullee benn julli wala ngeen def benn jaamu yàlla mhm. bu leen fayee benn ñoom seen jamono juróom fukk lay doon ñu ni ko ah waaw ya Rasulullah lu tax loolu te ñun ñu dajeeg mu ni waaw yéen jaamu ngeen di jaamu yàlla da ngeen ci am dimbal ñoom nag dañuy toll jamono boo xam si fa ñuy jaamu dañ ko defee mu nekk foo xam foo ko jafee mhm. maanaam dañ naan leen du ngeen am jàkka du ngeen ut ay sooroor seen haut-parleur du génn ci biti bu ngeen di julli da ngeen di tëju bu ngeen di wasifa da ngeen di tëju yooyu yëpp ngeen boole ko ah, boole ko nekk di jaamu yàlla loolu euh, wax dëgg beneen mbir lay doon rawatina tim jaamu yàlla gi ci jigéen ñi la gën a néewee ci jigéen ñi gën a néewee kon it jigéen joo xam ne si dafa bàyyi moroomu jigéenam te waxtu wii am na ñeneen ñu nekk ci loo xam ne si gën ñu leen koo bëgg dàqu ñu leen ko waaye da ngeen faa bàyyi loolu lépp ñëw wuy si euh, jataay bi mm-hmm. euh, bu ko defee nag muy mbir moo xam ne si dañ leen ñaan yàlla yàlla gën leen ci jàppale gën leen ci taxaw nit ki amul lu dul jaam yàlla waaw ndax nag euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañuy wax ni doomu aadama bi ngay bi ngay bi ngay juddoo danga bëgg ne putt di juddu juddu danga boo agsi àddina da ngay da ngay jooy say mbokk wër la di rey ndax kontaan parce que fi nga fi nga fi nga jóge a jóge xale bu xale bu nekk ci biir yaayam day defe ne buy génn di dee comme ni ñuy bañ a àddina ñoom noonu la bañ a génn seen biir yaay moo tax bu ne pour judd rek li def mooy yooxu jooy waaye ba muy jooy ay mbokkam ñoo ngi koy wër di ñoom di kontaan na nga fexe nag ba def loo xam ne si ëllëg yow euh, bis boo faatoo nag mm-hmm. boo faatoo na la say mbokk ji wër di reye bu fekkoon nga leen def lu baax yow noonu la fekk nañ war wër di jooy bu la fekk nga def lu baax noonu ngay noonu ngay nekk di di di reet di kontaan. Mhm. te loolu lépp li koy maye mooy jaamu yàlla addina bi nag dañ fay nekk mënuñu foo mënuñoo bañ a nekk ci addina li ñu ci addina bi mooy jaamu mhm. maanaam du du du lekk du naan du tëdd du solo jaamu yàlla képp mu ñu <coughs> léegi nag eh, am na laaj boo xam ne si bés bu nekk. ñu la koy yàlla malaaka ñu ngi la koy laaj mooy dañ naan la yow Kabir Sène bi la indi ci àddina bi benn tontu rek nga mën a tontu réussir ñaan dama ñëw ci àddina bi ngir di di jaamu yàlla jaamu yàlla moomu fi indi ah waaw liggéey bi ngay nekk di liggéey nag fu nekk nga dem fa nga waaw damaa bëgg di liggéey di am lu ma dëgërloo ba mën a jaamu yàlla comme da comme yow sa liggéey bi pour jaamu yàlla moo tax am loo mën a jaamu sa borom kon lépp loo xam ne si liggéey bépp liggéey boo xam ni dala yàqal sa jaamu yàlla da war a bàyyi loolu bu fekkente ni nag am na ñoo xam ne si tey jii boo leen laajee lu tax ngeen di lu tax ngeen di sonn di liggéey am na ñoo xam li tax ñuy liggéey di sonn dañoo bëgg lu ñu lekk boo leen laajee lu tax ngeen bëgg a lekk dañ naan la dañoo bëgg am doole am kattan. looy doyee kàttan gi damaa bëgg mu amee kàttan bi muy liggéey looy doyee liggéey damaa bëgg bu liggéey mooy liggéey am lu ma lekk looy doyee lekk gi damaa bëgg ma lekkee am kàttan looy doyee kàttan gi pour liggéey nga xam ni kon dund googu dund bu nax saay lu dund dara bàyyi ma yi sax lu yoon tamit dañuy wax ni ku jaamul yàlla nit bu jaamul yàlla dañ naan fasa ko gën xara ko gën naga ko gën ndax fas boo ko ne yow lu tax ngay sëgg di lekk ak naan fu ñu fekk yaa ngi lekk fas danaa la dama bëgg am doole mm-hmm. ñu ne fas looy doy doole yi mun waaw parce que yàlla daf ma bind ngir doomu aadama bi nga xam moo ko nekkal moo bëggaa moo bëggee war war moo bëggee sëf-sëf nag yow fu tax ngay lekk foo toll ak man damaa bëgg bëgg am doole bëgg damaa bëgg a duuf mm-hmm. duuf gi waaw bëgg doomu aadama bu ma reyee am lu mu jëfandikoo waaw eh, eh, naka noonu lépp lu yàlla bind rek xar danaan damay damay lekk ngir am doole ngir am ngir duuf ak ñu ne ko looy lekk pour boole duuf nee na bëgg bu ma bu ma duufee doomu aadama bu ma am lu mu jëfandikoo waaw doomu aadama yow rek lu tax ngay lekk kanam leen rek la war a tontu damay lekk kanam ngir am ngir am kàttan gu ma liggéeyee ñu ko waaw lu tax ngay liggéey damaa bëgg bu ma liggéeyee am loo xam si dinaa ci mën lekk ba dëgër bu mën a jàmm yàlla am fu ma dugg bu ma sonnee tëdd nelaw noppalu récupéré bu mën a jaamu yàlla ko loolu tontu loolu nag mooy kii jaamu yàlla ki jaamul yàlla nag benn tontu rek la mën mooy damay ja damay liggéey ngir am ngir lekk lekk ngir am doole am doole ngir mën a liggéey <coughs> liggéey ngir am ngir lekk lekk ngir am doole doole ngir mën a liggéey loolu nag dañ naan kooka bañoon ñëw ci àddina moo tane ci moom ndax ñi ñëwul àddina ñi ñëwul ci àddina bi ñoom boobu coono dañ dañ ñu ko looloo tax nag ñii ngeen koy defee nii nag muy mbir mu yàlla gërëm eh, te bala ngeen koy xam dëgg-dëgg ah, bis bu yàlla bu leen yàlla defalee gudd fan ba ngeen taxaw ci seen kanamu borom te ngeen di xam ni eh, àddina léeg bu nit faatoo dañ naan yàlla na réccu li doon def ci àddina hmm. loolu la ñuy wax hmm. mooy ña nekk barsax te fekk dañoo daan def lu baax ñoom boo leen fa fekkoon ñu leen kay leen ngeen delluwaat àddina nañuy bañe mooy raw ñun ñi ñu kaay ñu dem àllaaxira ñoom kay li ñuy rëccu mooy dañ daan buñ ko xamee woon ñii diir bañ def ci àddina duñ ko fa def ndekete lii la coono bañ doon def ci àddina bi yëpp fu nekk ñu dugg fa ndekete mbir mi nii la buñ ko xamee woon nii parce que foofu da dangay da ngay xéwlu ci doo sonn àddina nag lépp loo fi am da xaw ngaa dee. lépp loo fi boo boo ki yore otoom di dawal ami këram ki yore otoom am këram am lu mu lekk tëddul rek am ko da ngay da sonn lool loo ko am léegi nag loola ngay am lu ko ëpp foofu ci àllaaxira rek te defoo dara amul amul amul liggéey amul coono amul xol bu tàng amul. amul fiirante am dara amul ci lu xewul rek nga naan man nag bu ko xamee woon nii diir ba ma def àddina du ma ko fa def ñooñu nag dañuy nekk ci at ci at ci yowmal xiyaam naan yaa layta qawmi yaalamuuna bi maa xafara li rabbi wa jaalani minal mukramiin ak a neexoon rek waa man sama waa kër yi kan moo leen di xamal li ma nekkee ba duñ ma jooy kan moo leen di xamal li ma nekk ba duñ ma jooy loolu lépp li koy may mooy lii kon li leen di ñaanal yàlla mooy yàlla guddal seen fan defal leen fii ngeen di nekk di daal seen doole comme comme nga xam ni kenn ëpp leen diine li ngeen fii wut yàlla bu leen ko kenn ëpp leen amiin te yàlla bu mu yàq seen diine yàlla daf leen ngeen nekk dëgg dëgg ay taalibe xam naa maanaam xate gi rek ak itte yu bëri waaye bu dul woon loolu incha allah waaye nag yoon yëmu ci benn moom yàlla yàlla defoon ñu tawfiq waaw incha allah def ñaata jërëjëf jërëjëf sëñ la nañ kontaan nañ bu baax tabarakallahu ñu ngi lay gërëm ci euh, disponibilité bi ndax itam bi la ko Kabir waxee mu woo ma di ko wax euh, sàkk woon ci yow pour nga ñëw nga yombalal ko ko fa tabarakallahu loolu ñu ngi la ciy gërëm euh, te ñëw bi itam mun nañ ko ñëw boo xamante ni ñëw bu am am solo la ci ñun fa tabarakallahu ndax euh, jamono moo toll foo xamante ni euh, jot amatuñ ci kenn mm-hmm. yéen yéen a ngi daw yitte yi ak farata yi mm-hmm. tabaarakallaahu ñun ñu ngi fi di daan suñ doolee di def yi ñuy def ànd ak nag dundal suñu pas-pas mm-hmm. ndax ñun lii mooy suñu pas-pas nit ki nekk nag li ñuy wolof di wax naan jubu bi la fal bés boo ko watee rek nga folleeku te kenn ku ci nekk ci ñun da war a xam li nga am lan la waaw boo xamee li nga am lan la mooy tax nga mën koo valoriser fonk ko jox ko kidd bi nga ko war a jox waaw yombul nag ci réew mi ñu nekk waaye góor góorlu rek tey jéem a xejal waaw ànd ak nag dogu li wolof di wax ni ku dogu rek yàlla dogal la mm-hmm. waaw ñu taxaw temm tabarakallahu di góor góorgóorlu di sàkku ngeen yokk ñu ñaan incha allahu taala ba lii ëpp fii incha allah ndax loolu mooy yénn bi te xam nañ ne yàlla bàyyiwuñu ndax inna allaha maana incha allah yal nu ko yàlla defal bi jaayi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kontaan nañ bu baax bu ko defee kon nag euh, ñu dëkk mu defal ñu ñaan incha allahu ndax euh, yitte yi bëri na te dafa war a xëy suba teel Euh, dem Canada te early flight la am waaye lii moom daf ñu ci xejal rek ak itam xam bi mu xam am solo bi àjjuma am solo ci tàllu bi tijaan loolu loolu moom nañ koy bàyyi xel bu baax ku fi ñëw rek benn wax ji la laa wax xadaratu juma am bi mu am solo loolu xaw ma lan lañ war a waaye buñ bokk bokk te bokk si ci lañu war a ko bu ko defee kon ñu taxaw ci tem incha allahu taala bàyyi loolu xel bu baax a baax incha allah bismillah loolu naa bëgg a tëj itam ci mhm. euh, julli yi julli ci kaw ci chaise yi ci ñi nga xam si mun ñoo julli mhm. am dafa am daf maanaam booy julli ci chaise bu jàggeen da ngay toog rek bu mhm. julli di àgg li nga mënul baal nañ la ko mais maanaam boo julli seen bu taxaw bu ñuy taxaw da ngaa war a jóg taxaw maanaam ci taxawaay mhm. da ngay taxaw parce que mën ngaa taxaw mhm. bu rukkoo jotee nga rukkoo mhm. parce que mën ngaa rukkoo bu siggi jotee nga siggi bu ci wàcc sujjóot jotee nag ah nga toog ci chaise bi chaise bi waaw daal di junj sujjóot bi siggi toog kon ni ci chaise bi bu ñu jógee taxaw nga daal jóg taxaw rukkoo maanaam chaise bi daal li nga mënul mooy mënoo wàcc ci suuf. si sujjóot waaw mais li nga mën moom boo boo ko boo ko deful rek mën naa yàq si julli da gis ñoo xam ne si jàkk yu bare ba dañuy xam nga koo xam ne si yaa war yaa dem jëlal sa bopp chaise mm. yow yaa jóge si kër sa tànk dox ñëw dem jël chaise bi ñëw teg daal di toog kon ni julli déedéet dañu naan déet mën ngaa taxaw. comme mën ngaa taxaw kenn du la kenn du la taxawaay mën ngaa rukkoo mën ngaa siggi waaye nag mënoo wàcc si jot bu fekkente ni sax mën ngaa wàcc su jóot waaye doo mën a jugaat di dem dañ naan la bu ci bu ci rakkaa bu mujj ba da wàcc su jóot parce que boo amul jugaat waaw ah, parce que am na loo mën maanaam loo mën rek defal loolu boobu sew sew la de. waaw liste yi xam naa dinaa yónnee Kabir. waaw incha allah waaw dinaa ki maanaam jàngale woon nañ ko. waaw li nga mënul daal lañ la baal. yow mënoo su wàcc di sujjóot di jugaat di toog di taxaw taxaw mënoo ko bu boobaa nag kon nag toogal ci taxawal mën ngaa taxaw rukkool mën ngaa rukkoo sikki mën ngaa sikki. léegi nag mënoo sujjóot di jugaat. toogal ci chaise bi léegi nag rakkaa mujj ba. nga xam ni amul jógaat boo defee ak suuf su jot. su jot daal di toogee benn waaw loolu euh, bàyyi ci xel bu baax a baax. incha allah baax na jërëjëf. incha allah jërëjëf. alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah. الرحمن الرحيم jërëjëf alhamdulillahi rabbil waalamiin ملك الحمد